réanimation euh, de l'hôpital principal euh, de Dakar euh, ginnaaw malaise bi nga xam ne daal dina koy def ndiki démb ci ngoon loolu nag la El Malick Ndiaye daal di xamle ba tax na sax mu yokk ci ne Ousmane Sonko ci résistance bi nga xam ne mi ngi koy def face à l'injustice et à l'arbitraire maanaam jàpp nga xam ne dañ koo jàpp jàpp na ne ab injustice la waaye tamit jàpp arbitrairement la aussi tey jeudi 17 août yemoo ko 19e jour Ousmane Sonko ci wàllum grève de la faim bi nga xam ne daf ko daal di def te tamit ñi nga xam ñoo ko ci imposé muy régime euh, dictatorial bu euh, président Macky Sall loolu nag du samay kàddu moom El Malick euh, moo daal di yëkkati loolu le ba tax na sax moom mi ngi naan li nga xam ne moom de la justice ak son ministre de l'intérieur maanaam Ismaïla Madior Fall ki nga xam ne moom mooy Antoine Félix Ndiome moom nag nee ñoom ñi lee ñoom ñooy les principaux responsables acteurs yi nga xam ne dañ cee daal di bokk ci euh, boobile mbir bi nga xam ne nit sax mën naa ne euh, du ko daal di def si lépp loo xam ne rek dal na le chef de l'opposition euh, nañ jàpp ni ñooñu le ñoo nekk les principales responsable moom nag ki nga xam ne moom mooy El Malick Ndiaye mi ngi wax que ne jamono ji euh, viwu Ousmane Sonko dafa nekk en danger ba tax na sax moom mi ngi euh, woowaat ñi nga xam ne ñoom ñoo bëgg Ousmane Sonko ngir ñu daal di euh, taxawwaat ba dëgër ba tax na moom El Malick Ndiaye moom mi li mi ngi wax que ne jamono ji nouvelles yi nga xam ne ñu ngi koy jot ci Ousmane Sonko nekk na nouvelle yoo xam ne neexul benn yoon te son état de santé s'est gravement détérioré et tamit comme ni ma ko waxee tantôt président Macky gouvernement am la daal di tenir comme responsable moom la chargé de la communication euh, de Pastef mi ngi ci yokk que ne nee nañ daal di bàyyi Ousmane Sonko pendant qu'il est euh, encore temps maanaam jamono ji nañ bàyyi ki nga xam ne moom mooy Ousmane Sonko balaa leneen euh, di am ci mbir moom moomile ba tax na sax mi ngi wax que ni am na ay rumeurs yoo xam ne ñu ngi koy dégg di wax que ni am na ñuy discuter en dis en discrétion avec ki nga xam ne moom mooy Ousmane Sonko maanaam waxtaan pour sa libération moom naka nee na loolu ay rumeur la waaye nag du ne loolu existé wul mais ñoom yëguñu ci dara maanaam ñoom parti Pastef yëguñu ne waxtaan boobile euh, am na kon daal mën nañ jàpp ne moom El Malick Ndiaye daal dinay mettre fin Euh, yooyu les euh, rumeurs yi nga xam ne ñu ngi koy waxtaanee que ne Ousmane Sonko ak yenn ci autorité euh, jamono ji ñu ngi waxtaan moom nag nee na du ne loolu amul waaye nag nee na yëguñu ko keneen ki nga xam ne mi ngi wax ci situation Ousmane Sonko di Pape Alé Niang le journaliste d'investigation moom nag ma ngay xamle que ne waxtaan ak avocat wu Ousmane Sonko yi li te jamono ji la situation devient insupportable maanaam situation Ousmane Sonko jamono ji ni mu mel ni mun naa ne jaaxal Niang mi nga xam ne que ne le pavillon euh, Teranga maanaam fi nga xam ne fa lañ internet ki nga xam ne moom mooy Ousmane Sonko euh, jamono ji ay agent de renseignement yu bëri lañ fa euh, daal di teg daal di bancariser boobu li liyote tamit contrôle bu strict moo fa daal di am ci visite yi nga xam ne dafay maanaam ci ñi nga xam ne dañ fay ñëw pour visite loolu nag le journaliste moo ñu ko daal di xamle ba tax na sax moom ki nga xam moom mooy Pape Alé léegi ma ngay continuer grève de la faim mais nag euh, dignement euh, la koy euh, continuer te tamit bañ tamit képp ko kenn rek laal li nga xam ne moom mooy yaramam maanaam pour des soin médicaux ba tax na sax moom Pape Alé mi ngi wax que ni am na ci ñenn ñoo xam ne ñu ngi doon jéem a convaincre Ousmane Sonko di ko gëmloo ne ko Pape Alé Niang da doon da doon continuer da doon observer grève de la faim tout temps bàyyi médecins yi ñu koy faj alors que moom Pape Alé Niang nee na loolu noonu c'est totalement foo loolu noonu amul ndax moom nee dafa daal di entamé woon grève de la faim bañ aussi tamit médecin yi euh, di ko faj ba noonu la daal di génne ginnaaw nag boo mu amee libération mun naa ne ci la soog a nangu euh, médecin yi soo ko euh, laal moom sax mi ngi xam ne que ne avocat Ousmane Sonko yi xam nañ ci dara parce que du benn yoon du ñaari yoon ñëw nañ pour convaincre ko ngir ko mu daal di nangu médecin yi daal di laal yaramam mais nag nee na moom dafa daal di jàpp rek ca position bi nga xam ne fa la daal di téewoon ba wax que ne Ousmane Sonko jamono ji euh, la daal di nekk et des et des menaces euh, sérieuses euh, d'insuffisance rénale nga xam ne avocat am révélé woon na ko ne Ousmane Sonko jamono ji insuffisance rénale la daal di am mu ngi wax que ne nag lii mooy situation Ousmane sunk ba tax na sax moom Pape Alé Niang mi ngi wax que ne na ku nekk rek jël jël say responsabilité ci biir mbir bi nga xam ne moom moo dal Ousmane Sonko ak tamit lépp loo xam ne rek mën naa ne dina ko dal fi dañuy daal di wàcce wi eh, suñu waay kàddu di leen jaajëfal bu baax a baax di leen joxaat di daje ndikk ci kanam tuuti ak yeneen information waaye nag bu leen fàtte à chaque fois di abonné sur 313 digital